Hmm? non dama koy cité Karim Wade moo taxoon ñu bari ñu jóge ci parti démocratique sénégalais. mais loolu sooy loolu Karim Wade moo tax élection yu mujj yi ñoom tamit. demoon ci waa PDS non waxuma sax élection yi mais ci biir PDS bu dañuy yu am ci ci ah. biir PDS kese ñaata nit ñoo jóge biir parti démocratique sénégalais ñaata. Mm-hmm. ay premier ministre ku ne ku ne euh, te ñëpp benn nit la ñuy wax Karim Wade. tey Karim moom moo waroon a jël justement doonoy baayam boobu muy parti démocratique sénégalais mais téye ko téye boo xamee ni mais au contraire dafay jéem a rassembler waat xëccaat pendant que PDS a ngi tas mais yeneen i parti ñu ngay jéem a defaraat seen bopp gis nañu parti socialiste ñu ngay jéem a xoo woowaat surtout parti bu mel ni parti démocratique. mais PDS nekk ñu bëgg xool PDS pour bàyyi ko mu nuyee nii. daal di dee daal di dee nii. c'est que seen parti seen parti bi. parti bi ki jiite. président bi euh, barki dem la doon fêté quatre-vingt-dix-huit ans. mag la wax dëgg fa neex yàlla ñii di xale yi ba ci Karim Wade ñoo ko mën a jàppale euh, ba. parce que euh, ñun loolu lañ def euh, pour xale ñun jeunesse bi ñun Karim dese luñ ko dara jox nañ ko ñun ba moo duggee ci politique ñu taxaw mu nekk suñu candidat